fii taxaw doo fi taxaw Alioune Seye moo ngi taxaw ci ginnaaw Tidiane Faye ñoo ngi koy pil oh Alioune Seye gagné gum ne Tidiane Faye fii taxaw doo fi taxaw Alioune Seye moo ngemboo ngemb lu weex li te ci lu vert li tent bopp bi Tidiane Faye moo ngeem boo lu baxali abit baa ngi waxtaan ak ñoom am na lu mu xoo ci loxo Alioune Seye junior abit baa laaj ay jugeem maa ngi ci ànd ak Baye Djili Alioune Seye junior abit sifle na Alioune Seye na nañ bi Tidiane Faye la ñu jàkkaar lool Alioune Seye ngoy kàbbar Tidiane Faye Alioune Seye Baye Djili noo gisee bi lamb Ousseyn ñoom ñaar ñëpp ay mbër lañ waaye ay ndaanaan lañ ci làmb waaye kenn du Tidiane Faye la professeur de Langsar tànk ndi jooram bii mu jiital yàgg na koo jiital ay ndaanaan di leen daan ci làmb Alioune Seye tànk ndi joor la jiital ñoom ñaar tamit fi mu dolli bu ñu xeexee xeex bi dina neex waaye combat bi séntu ba ci xeex dañuy cokkaasante daw kenn jëli kenn su doon maay Tidiane Faye tey damay bàyyi xale bi combat bi di ko déglu lu mu indi ma fekk ko si moom tey xale bi moom moo soxla na ñëw parce que Tidiane Faye dafa yàgg ci làmb Tidiane fay dafa bëreek ay ndaanaan ci làmb bu ñu nee bëre na ak Paul ñu ne Paul Maurice bëre na ak Modou ñu ne bëre na ak Zos rek doy na palmarès bu rafet moom Tidiane fay kon xale bi tey Alioune Seye Junior lu mën a xew mooy examen lay def ci kaw Tidiane Faye examen boobu na dina ci réussir wala déet dañuy xool nag waaye en tout cas lu mën a xew mooy ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk mu ngi ci état de forme bu jaar yoon ku ci nekk pare na combat bi ndax combat bi yàgg na yaakaar naa ni combat bi mat na at ak lu teg ñoom ñu koy waajal di ko waajal di ko waajal ba tey bis bi ñëw na en lu mën a xew mooy Tidiane Faye pare na Alioune Seye pare na Ousseyn ñoom ñaari ñoo tax. booy xool Tidiane Faye moo ko xaw a mag ci làmb mais booy xool ñoom ñaar doole yi mel ni xaw nañoo tolloo kii di Alioune Seye que war na xeex ak Tidiane Faye wala kii di Alioune que warul taxaw déglu li nga xamante ni Ali Tidiane koy woon Alioune Seye que warul taxaw déglu li nga xamante ni moom la Tidiane Faye andi ba noppi balaa ma yem dama naan ko Tidiane Faye indil ko Guy Tangance bul ko may fu mu yàqee nàkkam parce que bëre bi bugguma ko ci xale Tidiane Faye dafa nekk ndaanaan ci làmb lu muy gën a liir di gën a am lecture di gën a xam li mu war a def ci combat bi loolu nag bul ko ko may parce que bu ñu demee ba tuddee ko le professeur de Langsar lu mu wane ci làmb moo tax ñu tuddee ko ko kon Alioune Seye gannaaw moom moo war a bëgg gën a bëgg combat bi ci li ñu yaakaar moom moo war a gën a mën a dem ndax Tidiane Faye dem na ba pare am ay échec wàccaat war a yéegaat ci kaw man su doon maay Alioune Seye junior ma digal ko dama naan ko indil ko Tita Ngaas xeexal ak moom waaye bul ko bul nangu mu jàpp la bul nangu mu jàpp la benn yoon ndax Tidiane Faye Ousseyn catuwee sax bu la ko jàppee day bëre ndax naanaan la ci bëre su ma déggee wax di daal mooy woo ko woon may fu mu yakee yàkkee nàkkam da ko wonto gauche droite jaxase ko public bi bëreeg moom bàyyi ji li stade baa ngi noonu ñoom ñaa ñoo ngay lewaatoo dóoranteeguñu jàppanteeguñu abit bi àtte na booy ñaa ngi noonu am mbubb mu xonk ba mu sol daw di wër stade bi abdou sifle waat na Alioune Seye Junior Tidiane Faye Alioune Seye Junior moo ñu woon ginnaaw Tidiane Faye la ñu jàkkaar lool dóoranteegu ñu jàppanteegu ñoo ngay xoolal de ci biiri bët Tidiane Faye teg na tànk topp ko wala boog dox jëm ci moom Alioune Seye déplacé wu na ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar dafa mel ni ñoo ngi commencé jege anto Alioune Seye cokkaas na Alioune Seye Tidiane Faye Alioune Seye Tidiane Faye Tidiane Faye cokkaas na Alioune Seye Tidiane Faye xeex na nu léegi. Tidiane daa bëgg a diriger combat bi Ousseyn da koo bëgg a jeexal te Alioune Seye bu ko may loolu jëli na ko jëli na ko Alioune Seye def na erreur da daan daan na daan na ko Alioune Seye def na erreur est-ce que jëli bi baaxul. xëy na combat am Alioune Seye est-ce que baaxul. parce que waru woon bëreeg lii Tidiane Faye. Alioune Seye daa waroon xeexal Tidiane Faye jàpp ko bëreeg moom waaye gis nga jël bi mu jël daw jëli tànk Alioune Tidiane Faye moom bëre ba ñàkk combat bi Alioune daal vraiment du lii lañ moom Ousseynou. est-ce xam nga benn affaire. waaw. bi Alioune Seye jël tànk Tidiane Faye bi est-ce xam nga Tidiane Faye da koo dóor tànk. da wax naa la Ousseynou Tidiane Faye fu mu la jàpp ci yaram day bëre. cettuwee day bëre Tidiane Faye ndaanaan la ci bëre Alioune Seye daa daw jëli ko te jëli bi ñorut wax da koo dóor ay coups yu bari ba Tidiane Faye kaaw mu mun koo daan Tidiane Faye pour man bu ko Alioune Seye bëggoon daan daa waroon mën a bëreeg moom daw xeex ak moom Alioune Seye junior daa waroon xeex ak Tidiane Faye xeex indi ko giite ngaas bu métti ba Tidiane Faye juum ci xeex bi nga bëreeg moom daan ko waaye vraiment tamit làmb ñaari ndamay dugg waaye benn ay jël Alioune Seye junior n'a góor démérité na góorgóorluwaat ñëwaat ci làmb xam ne làmb am na fi cër am na ci wàll ñuy félicité bu baax Tidiane Faye wane na ni du mag ci làmb daa jiitu xale yi ci bëre waaye du mag ci làmb ginnaaw loolu nag am na dañuy dem ci kanam tuuti xool grand combat bi dox ci diggante Boy Niang Thiapa Thioly Tapha Tine la géant du Baol boobu saa kàndee la ilaha illallah Tidiane Faye ak noonu